gannaaw bi nga xamee ne ñu ne rek eh, kii di Sidi Diop dafa daal di indil warugal bu takku ya Awa mu daal di toll ci fukki million ak ñaari oto information boobu nag di circuler ba ñëpp di ci wax mu mel ni nag warul ay rumeur kese la donte bi nga xamee ne nag kii di yaa Awa Rassoul ak Sidi Diop waxaguñ benn yoon sëy si seen diggante xibaar yi ñu mujjee jot loolu la fësal mu di rek information boobu ay rumeur la waaye lu ci mënti am